nee na danañu toll benn jamono boo xamante ni lislaam day dox di dox di dox di dox di dox mbaax ngi dem di dem di dem ba mu yàgg ñu te te àgg ci benn jamono boo xamante ni bii ay nit danañ ñëw yoo xam ne danañ dañuy wax luñ dul def uh-huh. xam luñ dul jëfe di wax te duñ ko def di fen guddeeg bëccëg suba ngoon nee na ñooñu ku leen jihaat ci làmmiñam ku xeex ak ñoom ci sa làmmiñ fexe ba leeral li ñuy wax ab jullit nga ku leen jihaat ci sa xol ab jullit nga ku leen jihaat ci sa loxo jihaat paa nga leen di rey mais nga orienté leen ba delloo si leen ci dëgg nee na ku ko def ab jullit nga waaye ku ko deful moom na nga xam ne fépp ngëm de desul ci yow fépp ngëm la wax loolu li muy tekki mooy inkaar bil xal bi dindi ci xol moom dafay sax dindi coxol moom daf fay sax rek jamono bu nekk. kon ñi nga xamante ne du ñuy wax luñ dul def war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne aussi société bi dañ fee nekk di ñàkk kersa war nañoo bàyyi xel bu baax a baax xool xoola oustaz Maodo. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni innal xayaa wal iman qurina jamian fa ida rufia ahaduhuma rufia al axar ci beneen xadis mu ne al xayaau xayrun kullu yiw daal kersa daal léppam yiw la Mhm. kersa léppam yiw la ñu àgg ci société boo xamante ni nit ñi dañoo ñàkk kerse ci benn façon boo xamante ni boo génnee da ngay jàpp ni sax nekkatoo Sénégal meneen réew nga nekk mhm. dafa am benn euh, magum diine dafay wax ne Sénégal boo fi xëyee boo fi fanaanee dégg jàng yi dégg wasifa yi dégg wax yu baax yi da nga naan ah te mu sofe ñëw danga nga naan ah fii de dëkku diine la wax dëgg yàlla nee na waaye boo xëyee génn ci mbedd mi ba 9h nga génn ci mbedd mi dangay jàpp ni fi ma fanaan biig dañ ma jë faa jële indi ma ci meneen réew. Mhm. ndax dafa dafa dafa contraire la. dafa contraire maanaam li nit ñuy wax ci guddi gi di ko wax ci tànt yi di ko wax feneen di ko wax feneen suñu génnee dafay mel ne loolu dañ koo dëpp. Mhm. loolu nag su fekkente ne yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi góorgóorlu lu baax a baax ci lu mel nii. ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ci yu mel nii sax na. kenn ku nekk di jàppale sa morom kenn ku nekk di dimbali sa morom loolu bu boobaa yàlla subhanahu wa taala mën naa def yooyu yëpp dañ. kon comportement bu ñaaw comportement bu bon dafay yóbbu nit fu bon. dafay tax kenn du mën a roy ci yow. xolal Maodo lu reelu dama mas a fekk benn xale bu yor cigarette di xëcc di génne ci bakkan yi di kii ma ne ko waaye yow sëñ bi sox sëñ tux mu ne lii daal eh, man bi may gone danaa damaa gis sama waajur daan ko def ma gis ma defe ne lu baax la man tam ma màgg di ko def maanaam kenn ku nekk ci nun nga bon ak nga baax nga baax ak nga ne ca safaan ba am na ku lay roy. ala kulli haal ala am na ku lay roy ki lay roy nag na fexe ba mu roy la ci roy boo xamante ni bu baax la kon. rikk waaye nañuy góorlu ba uswa xasana boobu nga xamante ne moom lañu déparé woon nga xam le moo nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rikk waaye kenn ku nekk ci nun na fexe ba di ko améliorer ci biir kéem ci biir xolam di ko améliorer ci jëmam di ko améliorer ci ay jëfam ngir yàlla subhanahu wa taala mën na roy roy bu baax te bari na koo xamante ni kët la muy roy daf koo jëlee ci benn nit rek xam nga kooku ci cigarette lay roy <laughs> waaye am na ni mu wat genn wàllu bopp bi moom it mu xëy wat genn wàllu bopp <laughs> te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ne eh, benn saxaaba moo koy wax ne nahaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil qaza'i <laughs> yonent bi sallallahu alayhi daf ne tere qaza ñun ko looy qaza mu ne wat genn wàllu bopp bàyyi genn wàllu bopp maanaam eh, wat Eh, wàññi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàññi ak wat ak yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko def waaye wat genn wàll bopp bàyyi genn wàllu bopp hmm. ngir mooy xuuf li bàyyi li xuuf li bàyyi li <laughs> uh-huh. yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko doon tere kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon ab jullit du jaagee ni lu mu gis rek roy ko ab jullit lu baax lu mu gis roy ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne mbaax barab bu ngeen ko fekk yéen ko moom uh-huh. dafa am benn magum diine mu baax moom itam dafay wax ni booy laaj laajal ko xam. Uh-huh. waaye booy roy royal ku jub. Uh-huh. booy ba loolu daanaka xawees na ko mën a binde or. Uh-huh. booy laaj laajal ko xam maanaam ki xam dalay faram fàcceel masala yi. waaye boo demee bay roy moom royal ku jub. mooy ne ndekete comportement ndekete jikko ndekete jikko. war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. yonent bi ah, dafa am benn kenn ci salafu saalix yi day wax ne albirru laa yabla. Mhm. mbaax du ràpp. Mhm. wa danbu laa yunsa bàkkaar kenn du ko fàtte. waaye wat dayyaanu laa yamuutu yàlla du dee mukk ne nag fa amal ma shiita yow jullit bi defal lu la neex yow kàccoor bi defal lu la neex waaye kama diinu tuddaanu tuddaanu li nga leble lañ lay lay fay waaye rikk waaye kon mbokku jullit yi nañuy fexe bay leble leble lu baax. Mhm. moo gën ñuy leble loo xamante ni ëllëg buñ ñu ko fayee day nekk loo xamante ni musiba la. <laughs> kenn ku nekk li nga leble moom lañ lay fay kenn ku nekk li nga. président Houphouët-Boigny waxoon ne celui qui par les armes. Mhm. périra par les armes. Uh-huh. waaw maanaam loo loo loo loo doxalee. Uh-huh. noonu la noonu la la lool lañ lay doxalee yooyu tamit. waaw waaw léegi fooy dugal li nga wax lépp ci axlaax yi nga wax nii. Hmm. léegi nag fooy dugal li ki ñu yónni ki yàlla yónni woon ci hmm. noonu waxoon ne man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu mm-hmm. étape yi wax bi yadihi ba bi lisaani et cetera ba ci xol bi xadis mm-hmm. boobu foo koy dugal ak fi jamono toll waaw lu ko nit di dunde <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lu am solo la question bu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni mm-hmm. man raa minkum munkaran ku gis ci yéen mbaax ku gis ci yéen lu dul noonu mbon fal yuxayyirhu na ko na ko soppi bi yadihi na fab loxoom dindi ko ne lii du fi nekk fa in lam yastati su ko mënul fa bi lisaanihi uh-huh. na jël làmmiñam wax ci fa in lam yastati su fekkente ni mënu ko fa bi qalbihi uh-huh. na na na na na fab xolam na ko na ko bañ ci xolam uh-huh. bañ caa bokk maanaam lu bon moom da koy dindi ak sa loxo mu dem loolu nguur a ci gën a gaaw wala kilifa gu mag a mag goo xamante ne dañ koy déglu moom moo gën a gaaw ci dindeeg loxo eh lii bu mu fi am yal na yàlla yërëm euh, benn sëriñ bu baax bu ñu daan wax Ahmed Tidiane Aw te dëkkoon Thiès. Uh-huh. Eh, mas naa fekk ci bun diggante armeel ak jàkka ji ñu teg fa benn affaire bu mag a mag a mag commencé seen mbir mu ñëw ni wàccee leen ñu daal di dindi. xam nga su ko Maodo Faye defoon wala Cheikh Fall. kenn du ko faale kenn du ko faale. Uh-huh. waaye kilifa goog bi mu ñëwee ni na dañ dañ koo daal di dindi kon doo kooku def na incar billet. Uh-huh. nguur mën naa def incar billet kilifa gu ñuy déglu mën naa def incar billet maanaam dindee loxo. léegi nag ñun fii nu toll nii mooy inkar bil lisaan maanaam nañu wax ci suñu làmmiñ ne lii fi war a am kët bu mu fi am loolu mooy lii ñu nekk ñeneen nekk ci ñeneen nekk ci tool bi mhm. am na ñoo xamante ne ña nga ca mhm. jumaaya di jiite di xot ba nit ñi mhm. maa ngi profité nuyuwaale ku mel ni imam Dame njaay ak imaam Assane Seck ak imam Ablaye Lam ak suñu imaam yi nekk Louga ak ñëpp am na ñoo xamante ne ñu ngi ca xutba jumaa di xutba yal nañu yàlla fay am na ñoo xam ni aussi ñi ngi daawa ci mbedd mi ak ci école yi di jàngale am na ñoo xamante ni aussi comme ni ngeen def ñi ngi ci rajo bi loolu inkaar bil lisaan la léegi nag ki mënul loolu diggante dëgg ak yoon inkaar bi lisaan la leeral diggante islaam ak kéefër euh, inkaar bi lisaan la ki mënul loolu yëpp nag fa mu yem mooy du du nekk sama xol mais duma ci bokk itam Uh-huh. loolu mooy inkar bi leet kon ñun diggante xol bi ak làmmiñ wi ci lañ toll uh-huh. loo xamante ne baaxul daal uh-huh. buñ ca bokk waaye loo xamante ni aussi loo xamante ne baax na nan ca bokk waaye lépp loo xamante ne dafa war a dañ aussi na ne na dañu war a dañu war a dañ Oustaz Maodo nii ngay jële ay invité ci rajo bi ak tele bi ñuy wax ngir nàngam dañ noonu la ñu mën a mobiliser ay nit yóbbu ci kilifa mu wax pour nangam dañ. nii nga ma eh, am na koo xam ni su nee ne nangam dañ lu baree bari dana ca dañ kooku itam di waxtaan ak moom pour ni na mu ni na nangam dañ pour loolu dañ loolu aussi ci inkaar eh, ci ci hadith bi la bokk. dem ci koo xamante ni kii aussi dajeeg nit koo xamante ni ku kii aussi dafa dafa dafa nekk ci lu dul noonu nga fexe ba génnee ko ci loolu inkaar bi bi lisaan la léegi nag am na ay façon yu ñu koy defee. benn wootekatu lislaam bu mag dafay wax ne am na ñaar yu wuute nga seen benn waay muy ñëw nga seen benn waay bàyyam di ñëw nga ne ko sa waajuru baax waa nga ne di ñëw wuute nag nga seen benn waay muy ñëw nga ne ko sa kër sa jëkkër ndeyee ma nga ne di ñëw <laughs> ah, baaxul maanaam am na nu ñuy incaré am na noo xamante ni noonu la ñuy dindee lu bon <laughs> dindi lu bon nag dafa am ay charte dafa am be kenn ci borom xam-xamul islam yi day wax ni la budda an yakuna al amiru wa naahi aaliman bi ma yamur aaliman bi maa yanha rafiqan bi maa yamur bi maa yanha adlan fii maa yamur adlan fii maa yanha dana ko xam te dana ca maandu waaw dana ca maandu dana ko maîtriser dana ko maîtriser mhm. dana ca ko xam dana aussi am ñeewante ci ki muy ki mu ki mu bëgg a jële ci loolu mhm. jóge ci maanaam bari na koo xamante ni mën naa contre Maodo Faye mais dafa réere Maodo Faye dafa xamul li Maodo bëgg saa yoo xamante ne dem na ba xam li Maodo bëgg ci moom rek day daal di ay la yéwén lay wax daal di incompréhension lay doon waaw ay ñàkk dégg lay doon waaye am na nu muy xamee ni kii daf ko yéene nangam rek def cee bëgg yàlla subhanahu wa taala moom moo gën a mhm. màgg ñépp waaye am na aaye yoo xamante ne daf koy indi aaye yoo xam ne dafay mel ne fu daf cay feeñ hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim hal adullukum ala tijaratin waaw ndax duma leen wax benn commerce boo xamante ni moo leen di musal ci mbugal mu mag moo xamante ne dafa war a ñëw ci yéen ëllëg commencé nag di wax naan da ngeen di gëm yàlla da ngeen di def nangam dangeen di def nangam nga xam ni rifq boobu ak lutf boobu lutf boobu ak compréhension boobu daf cee daf daf dafa am. Mhm. ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement moo taxoon nit ñëw fekk saxaaba yi toog ak moom mu dugg ci biir jàkka ji wala ci biir jumaa ji di saw ci koñ bi. gaa yi bëgg a du bëgg a jóg dóor ko mu ne déet daahu ariqu mu ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko moom àggale bàyyi leen ko ba mu noppi mu bàyyi ba sanguwaay ba noppi kaay mu ñëw mu ne ko yow foo dëkk mu ne ko ah man de dëkk sàngam ca àll ba li àll ba mu ne ko fii dañuy tere ko fi saw fii jaamukaayu yàlla la xanaa gisoo nit ñi di jaamu yàlla fii jaamukaayu yàlla la fii kenn du fi saw fekk gaa ñi dañ ko bëggoon a dóor bu ëllëgee boo bëggee saw dangay dem feneen dal ni fab leen baagu ndox sotti ci ñu fag ba baagu ndox sotti ci mu ne yow ki yàlla yónni eh, yow ki mu ni allahumma arham nii warham muhammadan wala tarham ahad <laughs> yow yow yàlla yërëmal maag ma maag yonent bi bu bu lu yërëmaat kenn yonent bi ni ko laxat xajjar tawaasi an parce que ñi si des a tax waaw laxat xajjar tawaasi an maanaam xatal nga lu yaatu <laughs> dëgg la kay xatal nga lu yaatu d' accord oustaz yaa ngi may reeloo sax ci li mbokk mi tontu maa ñu ma jël waa ji ci téléphone bi ñu jox salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo